commune bu Touba njiitul maire bi di Abdou Lahad Kane nag ànd na ak mbooleem conseil yi nekkee ci biir commune bi daal di dem ca Daaru Karim di gox bopp digganteem ak dëkk bu sell bi di Touba mat na fukki kilomètre tañ sancoon ko ci ndigalu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jaarale ko ci rakkam ji di Serigne Massamba Mbacké gox bii nag rafle woon lool ay jumtukaay rawatina ay bërëb bu fajukaay tax commune bu Touba sukkandiku ci carte sanitaire bi nga xam ne nii médecin chef du district sanitaire bu Touba joxoon na leen ko ngi di fi amal li nga xam ne moom moo di ab post de santé indi fii ci Daaru Karim ci dëkku Serigne Massamba. fii nga xam ne askan wi soxla na ko jaadu na fi ci carte graphique masse district bi nga xam ne mooy suñu conseil ci wàllu santé bi mu ne fii jaadu na fi loolu moo tax ñu indi fii juróom-ñeenteelu poste de santé bi nga xam ne moom la commune bi war a liggéey ñu indi ko fii ci Daaru Karim. ñu sukkandikoo ci kàddu maire bi di Abdou Lahad Ka ma ngay fësal ne poste de santé boobu dina nekk poste boo xamante ne nii luy baax la ci dëkk bi Daaru Karim te koppar yi nga xam ne nii fas yéene nañu ko cee def war naa toll ci téeméeri million ci koppar yi CFA ab liggéey ba itam war naa toll ci juróom weer. coût global bi mi ngi nekk cent benn weer la ñu ko war a liggéey. ñu ngi tabaraka taala di ni ñu ko tegee ak kilifa yooyu yëpp ñaan ci ñu intégré ko ci jàmm. Daaru Karim rafet woon loolu ay infrastructure jëm ci wàllum wér-gu-yaram ba yi nga xam ne ñoo fi nekk daan yëkkati seen kàddu di fësal ne képp koo xam ne ni war na nga ca booy mucc da ngay jànkoonteeg ay jafe-jafe yu tar ngir mën a egg ca bërëb yi nga xamante ne ni fa la ñu a muccee tey ji nag poste de santé boobulee dina mel ne lu saafara yooyu lay jafe-jafe waaye tam askan wi nga xam a gën a